ci weeru mais atum 2023 ndax bu doo ñëw revue waat sa revue am na caaj sa revue ànd nag tekk ak teey ak dal sa revue internet yi nee na ko bëgg de temps en temps dañuy bëgg ngay taxaw te xam nga lii nga sàjjee rob bu taxaw boo defoon revue dina gën a neex de gisoo loolu bés bi le jour tamina molo tamina gune de loo koy jàngal rek <laughs> ngaa la xale loo koy jàngal rek jàngal ko lu baax. Euh, je dirais à ta maman que tu as bien travaillé. waaw ouais, mais moi je dirais à maman aussi que tu fais un bon boulot sur 2ATV. du dëgg hormis la présentation non amul souci na bu bàyyil ma dem. Ndogo Gueye maa ngi lay nuyu bu baax Tamina. ñu ngi koy ziar. parce que tout moom keroog wax na ko nee na ma. <laughs> Euh, ah, attends attends attends s'il te plaît may ma lire son message Ndogo dafa neex nee ma. Euh, nee na non am na am na lu ma wax je sais pas si c'est pas audio ou bien mais nee na euh, añ bi ma lan yaa yor xaw ma lan ñulug bi mais na bu yor na nokkos bi finalement nokkos bi sax dama cee fàttee def sax safal man waa nokkos gi nag yegsi na sama sama kër ndax njoogu sax wax na ma ko nag tu vois njoogu wax na ma ko ma ne ko mën ne ko dénk nga nokkos bi ku mën a dëbb nokkos la koo xam ne tubaarkàlla lu lu lu mu lu mu lu mu bokk gën lu mu bokkul. Mm-hmm. nabu loolaa la gën loolaalul yal na la yàlla fal cat neel amin mm-hmm. su ko defee fantam. fulum yaaminal baj baj baj baj baj bismillahi rahmaani rahim yaminel baaj waaw kay Johnson ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar gentle internet alors bés bi le jour la ñuy tàmbali mm-hmm. ñëw ci sécurité maximale mu ne pour les procès et la manif Euh, du F24 journal bi mu ne focus sur Sonko moom rek la ñu daal di tiimale caméra bi ak objectif bi journal bi mu ne non comparution redoutée du leader de Pastef moom koy redouté amu ci ndax moom nee na carrément demul les FDS dañ leen a alerté mu ne sur ay ay cellules de riposte yoo xamante ne dañoo jàpp ne daal war na fi mën am ak yeneen i arrestation yoo xam ne itam ñu ngi koy envisager mu ne les renseignements généraux pour étouffer les initiatives subversives journal bi ci la dëkk tey ci suba gi direct news yi ñëw ci Amadou Ba mu ne dafa évaluer le programme xëyu ndaw ñi ak les jeunes nee na leen nag yéen gune yen ndaw ñi vous êtes la génération qui doit relever les défis du vingt et unième siècle yéen ndaw ñi daal yéen a moomee vent ndax na leen leer na ñun mag ñi ba ñu pare yéen ndaw ni yéen ay doxal moom Amadou Ba loolu la wax programme xëyu ndaw ñi nag dañu ko concevoir pour ñu mën a répondre à l'un des plus grands défis de notre temps xam nga mooy lan mm-hmm. l'emploi des jeunes waaye nag bu ma laajaale la mm-hmm. ndaw ñi am nañu xëy ah bu xal nii enquête ñëw ci maire de Dakar figure puissante bu Yewwi Askan Wi mu ni Barth tisse sa toile li tax journal bi wax loolu mu ne da taxawu Sénégal à yeewi askan wi jaaree par Pastef maire bu ndakaaru daal mu ngi tiire épingle am du jeu boo bëggee dégg dëgg mhm. Jean Paul Diaz nee na nous Dakarois te reconnaissons comme notre ndaan ndaan yaay sunu ndaan naan bu ko neexee sax ñu woowal ko awadi mu woyal ko suppa ndaan naan international suppa ndaan naan inter na bu bàyyil gaaw a tëgg nag ayow mii da nga mel ni yow ku juddoo sañ-sañ rythme ayow lii baa jàmm la bokkoo dara ak waa dina Sabax ñi nga xamante ne leket goo leen jox ñu dëgg ko problème bii laa nga bëgg ambiance ma mi day dugg rek ma dem nga ñëpp man <laughs> ay ca yoor yoor mi nga xamante ne eh, sama waa ji da doon wax naan du yooru buy wax yenn kàddoom ñëw na ci acte mm-hmm. trois de la résistance mu ni Sonko nee na du ma wuyooti benn justice te du ma wuyooti itam ci benn état boo xamante ne dafa injuste moom Ousmane moo wax loolu moom Sonko ñu fàttali ne tey dafa waroon a jàkkaarloo ak Mame Mbaye ci procès mi nga xamante ne moo dox ci seen diggante ci li jëm ci wàllu diffamation beneen bi mooy L'As Quotidien mu ni Amadou Ba dafa galvaniser les jeunes daf leen a duut pikiir tax karnaase Amadou Ba nee na jeunes yi na ngeen a yëngu ci lu jëm ci bilan projet xëyu ndaw ñi waaye dama ko bëgg laaj ne ko ci ay chiffres rek xëyu ndaw ñi fan lañu ñu ko jëlee ak fan la ñu ko yóbbu fu mu toll ci jamono jii balaa ñoo ambiance du dëgg ah kon nag nuñ buux ba dem ba xam le sama caat wi mën naa ko lool euh, bu Aliou Top entretien ak Mamadou euh, Gaynde Badiane coordonnateur bu grand parti bu Pikine nee na dama am benn sentiment sentiment bi ma am nag sentiment de déggu la face à ce qui semble être benn acharnement boo xamante ne teguñu ko ci ndoddu kenn ku dul Ousmane Sonko lii daal mu ngi naqari sama xol bi nabu lii naqari sama xol bi man man man Amadou Gaynde Badiane mooy dafa am yëg-yëg gu ma am yëg-yëg gi ma am nag muy yëg-yëgu déggu boo xamante ni jëmalewu ñu ko ci kenn lu dul nit ku ñu xam ne moom la ñu tuddee Ousmane Sonko. waa ji daal nee na lee ko naqari dialogue bi nag nee na le président dafa buggoon a demander en langage codé opposition am ñu ñëw valider légitimer li nga xamante ne moom mooy projet wu troisième mandat am nee na moom loolu daal la gis ci ginnaaw beneen bi mooy ñoom ils sont convaincus que Malick Gakou nee na mooy nekk cinquième président de la république waaw ñoom daal Malick daal moom Gakou mooy nekk cinquième président de la république loolu mooy seenub gëm-gëm beneen bi mooy objectif ultime de son projet mu ne mooy mu transformer dëkk gii def ko benn havre de boo xamante ne jàmm rek a fi am jàmm kese jàmm rek jàmm kepp jàmm dong cohésion sociale waaye également bien-être lii yàlla nañ ci yàlla yóbbu waay du dëkk moom lañ bëgg lii si ko ñëw ci Déthié Fall Déthié Fall nag décliné na li nga xam ne moom mooy programme am Déthié nee na moi mm-hmm. président de la république trois points de suspension ngeen baal ma la ca toftalu laa xamul suppression HTTC wax na ko HCDS remodelage bu CSE mu ni bu nekkee président du weesu ñaar fukki ministre ak juróom vingt cinq ministre industrialisation pas plus de trois titres fonciers par sénégalais sénégalais bu ci nekk doo am lu ëpp ñetti titres fonciers promotion de la construction en hauteur décee ngay campagne les ko wax ko boo xoolee ci suuf procès ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Sonko nee na dama koo boycotté dew ma tey dew ma suba ba pare menacé na juge yi journal bi tamit nee na ma ngay avertir Macky Sall beneen deuxième renvoi du procès boo mooy tuulee daana am secrétaire général bu cour d'appel pressenti pour présider l'audience mu ne les avocats de Mame Mbaye Niang contre tout renvoi disent être prêts à plaider pare na nañu tey pour plaider quotidien national Le Soleil ma dikk ci jant wi ñëw na ci programme xëyu ndaw ñi jant wi nee na réew mi à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle et de dorénavant jusqu'à désormais na nga jàpp ne 66 243 emplois créé nanu ko xam nga loolu mooy lan dépassé na 50 pour cent de nabu loolu dépassé na 70 pour cent weesu na 80 pour cent dépassé na 90 pour cent da nga yaakaar ne 95 pour cent la ah pour yow 100 pour cent la journal bi nee na 102 pour cent la de réussite xanaa li a neex eh, yéen yéen a liggéeyul ñoom ñu ngi liggéey looy choqué ak di xapp xappal bët journal bi nee na objectif bi te soixante cinq mille emplois képp dong kese mu matoon cent pour cent léegi yëf yi dem na ba soixante six mille deux cent quarante trois pour cent ñu ne la ca toftalu ca mille et quelques emplois ya moo génnee cent pour cent ya dugal deux pour cent ya mu ëpp nekk cent deux pour cent tuwarkal la tuwarkal la 141 700 demandeurs ñoom bénéficier nañu ci accompagnement wu DER gunge na leen DER gunge na leen. beneen bi mooy recommandation suivant les contraintes ak insuffisance d'un programme jant wi nee na bu fekkente ne da nga yaakaaroon ne ci lu jëm ci wàllu xëyu ndaw ñi asamaan si dafa xiinoon ma xamal la ne ndaw naa taw nawet wi naat naa naat ba pourcentage yi yéeg naa yéeg ba weesu 100 pour cent ma pour cent. réeru lu dee lu xew. luy problème bi. da bëgg wax ne journal bi lu mu wax amul. non non eh ko. waa kon luy problème bi kon. ma bëgg laaj rek ndax ndaw yi ñoom. ci 102 pour cent de réussite ana ñi am xëy. ah dama yi am dañu manifesté wu. et finalement est-ce que DER réglé na le problème euh, de l'emploi des jeunes et finalement ñoom promesse yi ñu defoon. par rapport aux emplois des jeunes dañ ne woon bi avant ñuy jot nguur que ñoom dañu koy euh, passer par les euh, par les industries an industrie lañ fi samp boo xamante ne ça a vraiment réglé le problème de l'emploi des jeunes damaa mm. laaj dong nag mm. ma ni ndax ñoom Sénégal bi ñu amee réussite ci cent deux cent par rapport aux emplois des jeunes mm. ndax man Sénégal bi may dund la man tamit dama la bëggoon laaj. Hmm. ba xam ndax ñoom seen ndax ñoom seen ndaje bi nga xamante ne ndaw ñi dañ koo teewe woon ndax yow gis nga ndaw ñi gis nga ndaje bi seetaan nga ndaje bi. Hmm. seetaan nga ko wala. Hmm. waa yaraax ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. Ah, ñu ngi leen di bëggee bu baax di leen ziar maa ngi leen di nuyu chaque jour dama leen di fàttee nuyu chaque jour dama leen di fàttee waa yaraax maa ngi leen di ziar bu baax di leen bëggee di leen nuyu di leen ziar. dama bëgg a xam it après 12 ans ndax moment bii la ñuy galvaniser ah waaw. dama laaj rek. ah waaw. ñun mais mais moment la ñuy dut piqûre. dama laaj rek mais nag wax dëgg yàlla nag nabu ku weesu nag sa objectif 100 pour cent nga yegg ba teg ca 2. 102 pour cent. tuwaarkaal la toj nga fi nag te koy waxtaanee nuyoo benn yoon waaye. waaye te bu xoolal bu ñu la joxee marteau toj nga fi toj nga fi rek bu ñu la jox lu marteau toj nga fi toj nga fi rek état bi toj na fi 66 243 tuwaarkaal la ndaw yaa ngi liggéey du dëgg Ousmane Sonko boycotté na tribunal Libération moo ko wax mu ni moom Ousmane Sonko nee na jël naa décision wu bañ a dem wuyu ji justice loolu man maa ko décidé man Ousmane. Mhm. Libération ñëw ci interpellé par la sûreté urbaine oustaz Assane Seck waaye sama oustaz bi. téye nañu ko en garde à vue moom. dañu ko cueillir démb ci Sibi Xotaan foofu la dëkk à l'origine benn vidéo boo xam ne daal da doon affirmer entre autres ne soit Ousmane Sonko day nekk candidat gagné élection yi soit nekkul candidat dëkk bi dina takk lii daal la wax Libération nee na lii la wax. moo jar moo moo moo ko indil garde à vue bi beneen bi mooy interrogé à la DIC hier Cheikh Gadiaga moom itam jàppati nañu ko euh, l'indépendant bu loo ndam Siré ñëw ci élection présidentielle bu 2024 moom Déthié Fall la jox kàddu ndax Déthié Fall dafa décliné programme am Déthié nag fu mu nekk nii ma nga ca campagne boo xamante ne tubaarkàlla Sonko braqué wu na nee tribunal moom dootuma fa demati boo fa demul tribunal dana wéet Pape Malick Ndour def na bilan wu président Macky Sall ba pare mu ngi chargé opposition bi loolu nag mu ngi jëm ci partage des résultats programme bi nga xamante ne moom la ñu dëppee xëyu ndaw ñi Pape Malick ma ngay attaqué ti lay foo ñëw ci Déthié Fall candidat à la présidentielle journal bi mu ne génnee na ay grand axe am yi nga xamante ne programme am ci loolu lay tënku observateur ñëw ci Burkina témoignage de Sénégalais victimes d'attaques terroristes mu ni ci ay néew lañ doon ndox c'était un moment de pure terreur mu ni ay atta ay terroristes ñoo ñu attaqué on doit la vie sauve à un coup de fil ils nous ont dit qu'ils nous tueraient la prochaine fois beneen yoon bu ma leen jàppee bu ngeen mucc témoignage yi lañ ci def Sonko woote na désobéissance journal ba wax na ko baisse du prix du loyer bailleurs récalcitrants yi dinañ leen renvoyer devant le tribunal lii mooy dëgg lii mooy dëgg lii nañ waxante dëgg lii la la ni la bande de sept partouzards dévoilée l'appartement meublé et la rencontre le jour de la Korité waa waa yéen waa waa waa yéen waa waa dëgg waaw dégguma dégguma tubaab dooma dooma ko tekki waaye yéen gune yéen yéen waaw ah, yéen ah, lu la jaaxal lan la ma mi doucement sax bul fàtte ne am na cent deux pour cent yoo xamante ne dañ ko am ci réussite jëm ci xëyum ndaw ñi lii nga wax nii ci tubaab mooy. lan ci yow ñii dañuy xëy ñii dañuy xëy di wuti liggéey ñii di xëy. non liggéey am na génnal ci. waaye du ngeen bàyyi partous di. lan mooy loolu yéen loolu mooy lan. suuru korite ngeen di def seen bon yi. Mm, mm-hmm. partous. yéen lan la. ah mami ci wolof. xaw aca nay mina sheytaan rajim bàyyi oh. la partouche ku fa partouche nañ la jàpp nga xam ne yoon nekkul ngeen di teg seen ndey ak seen baat mais lan ngeen di partouche am ngeen ay xëy kay dem leen ngeen liggéeyi ji yow ñii di ay xale ndaw xale ndaw xale ndaw xam ne di di di fooloo xam ne foo mag la lu seet jàngi leen ay yow ange billahi min sheytaan rajim ay lii yàlla nekk jàmm de ku ne tuuti juddoogul bëgg doy waar bëgg góor ba de. Hmm? lii moo tax ko ci am doom rek fu mu nekk nii sa xel mi dootul dal jàngu leen mu ngi xëy su ba ngoon jot li ngeen di jàng dara baaxu ci tuus ñebe lu ngay xaar ba tollu ci lu ngeen di yàkkamti naan tuus doy waar Walf Quotidien ñëw na ci visite mouvementée mu ne Nabu Koor journal bi nee na yi dañ koo yuuxoo ca Londres problème am na de. Mm-hmm. Mm-hmm. xaaral walaay ñun jàmm la ñu bëgg suite judiciaire de ces dossiers Sonko prône l'équilibre de la terreur journal bi loolu la titre réew mi ñëw ci Sonko sur les affaires de Adji Sarr Mame Mbaye et autres moom Ousmane nee na tribunal moom bu leen leeree ne dootuma fa demati rek mhm. Farba Senghor invité du grand oral sur réew mi mu ne dem ci dialogue bi loolu signifié wul ne danoo cautionné lépp loo xamante ne Macky Sall dana ko fa wax su a ñëw ci en cas de recours aux par des responsables isolés du camp présidentiel dans le cadre du procès Ousmane Sonko Mame Mbaye la gendarmerie daal mu ngi sur ses jamono ji beneen bi mooy ay avocat am su jotuñu convocation loolu su su a moo ko bi ci topp Déthié Fall fu mu nekk ni programme bu ambitieux daal moomu la jaay Sud Quotidien ñëw ci procès en appel Ousmane Sonko Mame Mbaye mu ne ñu ngi jublu ci benn 8 mai boo xamante ne 8 mai bu décisif lay doon l'inéligibilité du leader de Pastef euh, mu ngi nekk dans la mire du parquet fu mu nekk ni mhm. selon moult observateurs bi wax ko défense am civile moom daal wàccul yoonam la mu waxoon ne moom lay jëfe loolu lay jëfe nee na tribunal dootu fa demati un point c'est tout très bien tribune ñëw ci Oumar Ba invité de la TLV mu ne dafa lâché une bombe nee na le président des maires du Sénégal dafa confirmer daal dil bi am ci biir dialogue bi Macky woote tribune moo ko fësal Bougane Gueye dani nag Gueye Mame Góor leaderu gëm sa bopp xool ci suuf mu ne sénégalais bu ci nekk am nga responsabilité responsabilité bi nag mooy nga xeex système bi nga xamante ne moo fi nekk nii Déthié Fall nag nee na Sénégal daal le pays est ci benn stress social boo xam ne moom la nit ñi di dund loo xamante ne amul daal lu nun ko mën a naatable dem naa ca làmb ja waa kii ah <laughs> ah sunu làmb nag man bëgg nañ maa indi problème nag du dëkk Macky Sall prête une oreille attentive à la reine les acteurs de la lutte président de la république dina leen dalal tey ci altine gi waaye mënoon ngeen jël photo actualité ngeen def ko fii man kii ngeen jël ne ko man tiital ngeen ma tiital ngeen ma tamit du dëgg waaw lii pour wax ñu ne daal président de la république Macky Sall day dalal tey acteurs de la lutte yi mise en place bi 15 heures la bu ko kenn wute. audience bi 16 heure la maanaam da ngeen di ñëw une heure de temps avant ngeen di jàkkaarloo président may sa nee na tous les acteurs sont conviés invité nañ lii yow de une bi mu ngi mel ni fu mu nekk nii <laughs> communiqué une <laughs> bi comme quart carton invitation. suñu lamb tey invitation kenn mës ta gis lii. waaye làmb ji dafa amul ay face à face dafa amul ay combat yu ñu war a mën a jëm ba rek ñoo mën a tiitrer rek ci leneen jël lii utal ko benn paragraphe def ko fa. Hmm. sunu làmb nag tey moom wax dëgg yàlla tey moom moom tey moom une invitation ngeen def nag wax dëgg comme invitation mariage de sauf que lii invitation présidence la. sunu làmb moo leen di yëgal ne leen acteurs yi président dina leen dalal tey ci altine ji yokk ci wax leen heure ne leen <laughs> audience bi 16h la waaye 15h ngeen di ñëw ndax mise en place ba heure boobu la beneen bi mu ne Maysa Ndiaye tous les acteurs woo nañu leen bu kenn manqué na koor bu ko manqué y compris les VIP mu mel ni comme Mami Samba danaa ca dem après Abdoulaye Wade Macky mu ngi perpétuer tradition am Wade moo ko fi defoon Macky nee leer na. jërëjëf euh, invitation bien reçue jërëjëf jërëjëf. waa kay. Mhm. beneen bi galaaw fuuta production mi démb Pokola. Pokola daal <laughs> Pokola moo jàpp bul laal daan ko ci deux minutes vingt et une xam waaw bul laal yow looloo xoolee ba ñu lay laal ba daan la tamit nañ waxante dëgg. ah xale booy Pikine la nag. bul laal mi. non l'autre. kon yow xam nga Pokola na. bien boobu moom. xam naa ko. waa na Nabou yow kon nooy xamee ko balaa te xamoo Ama Baldé day am day am bruit buy buy aller day am bruit retour day am bruit. mais Ama Baldé romb sa koñ du am bruit. <laughs> nijaayam la. non damay laaj Ama Baldé buy romb sa koñ bruit du am. est-ce que foofu lay jaar d'habitude. booy ñaa buy romb sa koñ ah yow sa koñ pour dem arène ba nga ne yow du fa jaar fu mu jaar. am na ñoo xam ne duñ fa jaar. fu ñu jaaree. Mm, parce que. ñoom ñoo ñu gën a jege foofu. léegi Pokola lu tax muy jaar sa ko ñëw. loolu ça c'est une très bonne question. te lu mu bokk ak Ama nga ne. dégg naa jarbaatam la débu kay moom gëstu naa ba mu leer bu ma sànnaam ba <laughs> record <laughs> ñëw ci France mu ni les Habib frappe à nouveau Diallo puissance 18 warkalla macha allah illégal ma Mamadou Niang mu ne sur une saison. tubaarkàlla Ligue 1 bi vingtième journée GF mu ne reste solide leader macha allah ay ayca ñu buux ci beneen yéen kay xam naa fa la ñuy jeexale stade première ligue palpitante course au ku euh, Kouyaté ak euh, kii ka la Niakhaté ak Gana ñoom ñëpp danoo nekk doo au mur tey ci altine gi wala yàlla bu ngi leen ci sës te bu ngeen sësee yàlla bu ngeen xoosu yàlla na ngeen ci am ndam lu yaato yaato yaatoo leneen li ci topp ngaa la soxlawul nga may xool boo ko bëggee jëndal journal stade mu jeex tàkk wax ji jeex bëx bëx kon jeex na tuwaarkàlla tuwaarkàlla. yaa mën nag roy bi ma doon toog fii sax ñi daan def revue wax dëgg yàlla. ñu ngi xaar ko nabu nabu mayuma la waayu polygame bi ngaala bi am ñeenti jabar war a tukki. jabar yi kenn ku ci nekk naan ko nijaay noonu ngay demee ah nijaay na xanaa doo demee noonu nag. aawa ñu defe ne aawa bàyyi na ndekete aawa moom moo gën a waye di ñëpp naan ko xanaa nag nijaay nag wax dëgg yàlla nag boo naree dem nag xanaa dina am loo fi bàyyi nag du dëgg ñaareel naan ko maa ngi xaar ba nga génn kër gi yow te tàggoowoo ma ak yow ni ma war a tàggoowee ñetteel naka noonu ñeenteel mi mujjee juddu naa ko ah, yow papa yow papa ni ngay demee ah ne non non man boo demee ni ma lay nam xanaa nag papa yow di def ay yëf waa ji sonn xamul nu muy def mu tegalee leen def leen cercle da nga bëgg xam nu mu tàggatoo ak ñoom. bàyyil ba émission bi jeex. lan la. wax ma nu mu tàggatoo ak ñoom. Eh, non loolu du ma du ma lay wax lu ma lay wan la. loolu du lu ma lay wax. lu ma lay wan la ma xool ko mu ne ma eh ba ma xool ko mu ne ma xale nga yàlla baax na. waaw bàyyi dama bëggoon xam parce que ni ngay ni ñoom ni mu tontowee am na ku ma ko soufflé léegi nii kon. yi ñoom noonu la ñuy def. ah. xam nga teew yaa baax yaa gën yaa. xam nga xam nga xam nga kaay ma wax la xam nga kuy góoru polygame dëgg. Hmm. ki nga xamante ne mën naa gérer ay jabaram te bëggul kenn mer maanaam ku mu ci wéetal ne la yow laa bëgg. waaye am na noo koy doxalee dafay jur concurrence ci biir sëy bi te xam nga bu fekkente ne jabar yi bokk nu fu nu dëkk amul problème dina neex a gérer waaye boo leen boolee ñoom ñëpp ci benn kër imagineel aawa ah ñaareel ñetteel ñeenteel ñëpp ci kër. yow nga war a tukki war a tàggatoo xam nga doo tàggoo awa bàyyi ñaareel doo tàggu ñaareel bàyyi ñetteel te doo tàggu ñetteel bàyyi caat ñëpp ngay tàggu mais pour mën a tolloo leen yëpp cercle la leen def taxaw ci digg bi après dinaa la ko wan après émission bi ñu du jàmm